ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر الخلق خلقه waddaaru daaru laa yusalu amma yafcalu wahum yusaluun wala yuqaalu lima wa kayf wala yadxulu axadun bayna allahi wa bayna xalqih وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام فانه رجل رديء القول والمذهب وانما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه انما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله لانه انما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القران وعرفنا الخير والشر والدنيا والاخره بالاثار وان القران الى السنه احوج من السنه الى القران والكلام والجدال والخصومه في القدر خاصه منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وكرهه العلماء واهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والاقرار والايمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله الاشياء وتسكت عما سوى ذلك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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu del siwaat kon ànd ak al imaam al barbahaari ci téeréem bu am solo bii tey ñoo ngi toll ci fukkeelu jataay ak juróom-ñaar al majlisu saabi ashar mu ne waalam annahu laa yadxulu al jannata ahadun illa bi raxmatillah wala yucadibu allahu axadan illa bi dunubi nee na waxlam xamal annahu nekk lay mbir tey mbir moo di laa yadxulu du dugg aljannata ajjana axadun kenn illa bi raxmatillahi lu dul ci yërmaande sun borom dugg àjjana yërmande yàlla moo la ko dugal wala yuazibu du mbugal allahu yàlla ahadan kenn illa bi dunubihi lu dul ci ay bàkkaaram ku yàlla dugal sawara ku nekkit bakkaaram moo tax mu dugal ko sawara loolu moom ñaari reegal lañ yoo xam ne amul lenn luñ ciy settee lay dalil ci ne yërmande yàlla mooy tax a dugg àjjana sax fa mooy waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan xula ahadukum aljannata bi amalihi yonent bi nena amul kenn ci yéen kuy dugg àjjana ñu wecceel ko ko lam doon jëf qaala wala anta ya rasulallah ñi ne ko ba ci yow yonent yàlla bi qaal wala ana illa an yataxammadani allahu bi rahmatin minhu wa fadl rawahu albuxaari mu ne ba ci man lu dul su fekkee ne sa borom <coughs> tabaraka wa taala sa borom tabaraka wa taala ci boppam moo ma yërëm sottil ma yërmandeem ak ngëneelam loolu nag lu mat xam la moom la boroom téere bi junj foofu dugg àjjana <coughs> yërmaande yàlla moo koy maye waaye nag jëf ya jëf yi doomu aadama yi jëf muy jaamu yàlla yi mooy sabab si jëf yi mooy sabab si sabab si loolu tax mënta ñàkk ku andi sabab si am yërmande ji ku andiwul sabab si doo am yërmande ji mu ngoog lan mooy sabab sababu su yërmande yi borom tabaraka wa taala ñaari mbir al iman ak taqwa loolu yi mu wax ne wali yu yàlla yi mooy seeni melokaan ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون féete yàlla yi du ñu jàq du ñu tiit tey ak ëllëg ñooy ñan mu ne alladina amanu wa kaanu yattaqoon mooy ñi boole gëm yàlla gu wér gu dëppook alquran ak sunna boole ko ak ragal yàlla gu wér ci def ndigal yi bàyyi tere yi borom bi tabaraka wa taala bam ne wa rahmati wasiat kulla shay yërmaandeem nee na daj na lépp lum ca teg fa sa aktubuha lilladina yattaquun ca tegu alladina yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun maanaam boole na diggante taqwa foofu ak iman yaar yooyu ñooy ànd nit ko yeyoo yërmande yàlla moo tax bunt la boo xam ne kenn waru cee teengal waaye kenn <coughs> kenn waru cee sàggan teengal gi mooy jàpp ne yow sa effortu bopp moo lay yóbbu àjjana waaye yolomal gi ba mu ëpp <coughs> mooy li ñenn ñuy wax nga xam ne dañ naan yërmande yàlla yaatu luñ def ci ay njaaxum ak mën a doon boo dee ah lii de moom lu xaraam la lii de nangam ñu ne ah yéen seen dënn yi dafa xat waaye yërmande yàlla moom yaatu na kay yërmande yàlla yaatu ba yàlla waxal ko boppam wa rahmati wa rahmati wasiat kulla waaye lu mu ca teg fa sa aktubuha danaa ko bindal ñaan lilladina yattaquun lilladina yattaquun ñi ragal yàlla ñooñu la ko yàlla jox kon sabab si mooy jëf yii jëf jaamu yàlla yi mooy sababus am yërmande yàlla ku jëful jëf yi yeyoowoo yërmande yàlla te yàlla du la yërëm borom bi tabaraka wa taala nee na udxulul jannata bima kuntum taamaloon dugg leen àjjana ci sababu li ngeen doon jëfe moo tax kàllaam ak arab ku bëgg a dégg alxuraan wala nga bëgg a dégg sunna faaw nga góor góorlu ci ba xàmmee ko baat bii di xarafu baa dafa am ay maanaa yu bari bokk na ci maanaa yooyu yaari maanaa yoo xam ne ñoonu itteel fii benn bi mooy baaul iwat muy baa boo xam ne li muy firi mooy weccee beneen bi mooy baa u sababiya baat boo xam ne li muy firi mooy lii sabab la ci lii ñaar yooyu nag dañoo daje ci texte yi nu tiim bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lan yadxul aljannata ahad ahadukum bi amalihi kenn ci yéen du dugg àjjana bi amalihi baa boobu yi day du baaw sababiya maanaam waxul ne bi sababi amalihi uhu kay bi sababi amalihi kay lay dugge àjjana waaye bi amalihi bi sababi al iwad baynahu wa bayna allahi subhanahu wa taala maanaam du caagi ne ak moo ci am lii ngay jaamoo yàlla su doon dañ koo natte liñ lay faye ëllëg boo jaamoo yàlla junni at yoo xam ne mooyoo ko fi benn yoon bu dee weccente rek la bis boo yandoo àjjana lenn dal bu ngoonee ñu ne la jeexal nga jeexal nga da génn ndax li nga jaamoon yàlla jeex na dama ne sax benn bis waaye boo demee une de temps yi rek yóbbu na li nga jaamoon yàlla lépp kon nag lu fa sës yërmaande suñ borom tabaraka wa ji nga xam ne wecceewut ak yow li nga doon jëf waaye dalaa yërëm ci sababus li nga doon jëf moo loolu mooy indi udxulul jannata bi ma kuntum taamaloon ay bi sababi ma kuntum taamaluunahu ci sababus jëf ji ngeen doon jëf ci la leen dugale àjjana dama doon santaane ne def leen ngeen nangoo jëf ma ne bàyyi leen ngeen nangoo bàyyi loolu moo leen may àjjana tey waaye du caagi ni dama wecceenteeg yéen ngeen jox ma lu tol nii jël lu tol nii déedéet nit ki mënta weccanteeg yàlla la ko gën a firndeel rek mooy suñ borom soxlawut jaamu yàlla yi doywu ko dara maanaam li ngay jaamu yàlla lépp la ko tàmbalee fa mu tàmbalee ba fa mu lu ci toll ne tarfatalaay ni loo xam ne day jariñ yàlla wala mu di ko yokk wala sax ñàkk jaamu yàlla di ko wàññi dara loolu ci kon weccente amul foofu ndax kuy weccente day am lum aajowoo am kii itam lum aajowoo mu ne ko jox ma lii kii ne ko jox ma lii kenn ku ne yóbbu loola ndax danga nga koo aajoo waaye déedéet suñu borom tabaraka wa lim am ci yow en tant ab jaam boo xam ne moo ko bind mooy defal nga def bul def nga bàyyi loolu bu ko amee ci yow rek yërmaande jàpp sës mu dugal la ci ajjana joo xam ne jëf mënu koo jënd jaamu mënu koo jënd yal nañ ko suñu borom may loolu nag day wute lool ak kuréel bi ñuy wax la ak ñi nga xam ne dañuy xeltu ñi leen topp nga xam ne seen diine daanaka am xelum kese la dañuy wax ne ki doon jaamu yàlla dafa yeeyoo dugg àjjana kom yow ki nga doon liggéeyloo mu yendu la <coughs> liggéeyal ba ngoon <coughs> nga war koo fay noonu mu yeyoo pay gi jullit bi noonu la yeyoo pay gi ci yàlla loolu musiba la wax ju suufe wax ju daanu joo xam ne réere yàlla mooy tax nit di ko wax sun borom tabaraka wa taala dara dara lu dul loo ne moo ko warlul boppam lu mu warlul boppam rek mu teg ca ne walaw adaba bu mbugaloon su mbugaloon allahu yàlla ahla samawaati waa asamaan yépp wa ahla al aradina ak waa suuf yépp ña dëkk asamaan ak suuf ñépp yàlla mbugal leen barrahum ña baax ci ñoom wa faajirahum ak seeni kàccoor su fekkoon ne mbugal dañ mbind lépp mbugal da leen <coughs> su ko defoon kon it àddabahum mu mbugal leen gayra zalimin lahum te du tax mu tooñ leen maanaam li bind lépp su leen mbugaloon diisul wax ne tooñ na leen lum saña def la def ab sañ-sañam àgg na ca loola mën na ko itam moo tax mu ne laa yajuusu du dagan an yuqaala ñi wax lillaahi ñeel yàlla tabaraka wa taala innahu nekke moom zaalimun aji tooñ la kan mooy tooñ mu ne wa innama yazlimu dana tooñ man yaxudu kuy jël maa laysa lahu lu moomut kuy jël mooy tooñ wallahu yàlla jalla sanaauhu taggam nga màgg na laxoo ñeel na ko alxalqu <coughs> wal amr moo moom bindeef moo moom sañ-sañu digle ak tere wal xalqu bindeef yi xalquhu ay bindeefam la wa daaru kër ga daaruhu këram la muy kërug àdduna ak kërug àllaaxira laa yusalu amma yafaalu wa hum yusaluun la muy def kenn du ko ko laaj waaye keneen ku mën a doon loo def dañ la koy laaj foo ko teg wala yuqaalu diisul wax lima lu tax yàlla def lii wa kayfa diisul ne nu yàlla defe lii wala yadxulu du dugg ahadun kenn bayna allahi diggante yàlla wa bayna xalqihi ak mbindeefam yi ki mbindeefam kenn sañu faa dugg di wut ay sañ-sañ ak yu nuroog yooyu fii nag dafa am ay kuréel yoo xam ne réer nañ fi ñi settantalul wax al imaam al barbahari fii sax dañ ne lim wax fii dafa nuroog waxi al jabriya lim wax ne wa innama yazlimu man yaxudu ma laysa lahu kii tooñ mooy kuy jël lu moomut al jabriya lu ñuy wax dañu wax ne yàlla munta tooñ ana mun ko gayru qaadirin ala zulm bu ko doon jéemit du ko man loolu njuumte la inna allaha ala kulli cheyin qadir yàlla lu nekk lu nekk la man waaye lan mooy dëgg moo di tanazzaha ani zulmi wa xaramahu ala nafsihi moom ci boppam moo bañ moo bañ tooñ ba àgg ci xaraamal ko ci boppam su dul woon lu man a nekk jarul mu koy xaraamal lu munta nekk kay kenn du ko xaraamal waaye dafa mën a nekk waaye nag nekkut sun borom tabaraka wa taala la yujizuhu shay lu mu bëgg a def lu nekk mën na koo def te su ko defoon it nii koy imaam bi waxee léegi sañ na ko maanaam su mu bëggaloon ñëpp itam sañ na ko ndax moo leen moom moo leen bind te tàgguwul kenn kenn dimbali ko ci ba mu leen di bind yëfam la kon ak tooñ amut foofu taarif bi gën a xóot ci zulm mooy waddo shay fi gayri mawdiihi jël dara teg ko fu dul palaasam loolu mooy tooñ loolu mooy tooñ mooy taarifu it ahlu sunna wal jamaa ci tooñ gi nga xam ne moom la ñuy dàq ne sunu borom tabaraka wa taala du ko tooñ kenn sunu borom du jël dara teg ko fudul palaasam len lu ne fam ko teg foofay palaasam loolu moo tax du tooñ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid moom moom kër gi moom moom bindee fii kon lu ko soob la cay def waaye warlu na ne du tooñ kenn loolu moom lu mat a sante sunu borom tabaraka wa taala la borom bi ci boppam moo wax ci xadiisu abi dhar alxadiisu alqudsi mu ne yaa cibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarraman fala tazaalamu yéen sama jaam yi araamal naa tooñ ci sama bopp ci boppam la ko jëkk a xaraamal araamal ko itam ci seen diggante fala tazaalamu bu tooñante xadis boobu rawaahu muslim mu teg ca ne wa ida samita boo déggee rajula nit yataanu muy jam ala ca jeexit yeñ tuxal jële ko ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam wala ñu jële ko ca saxaaba ya wala ñu jële ko ca ña topp yonent ba ak saxaaba ya loolu mooy al athar lim jubli ci al athar foofu mooy xadis yu wér yi jóge ca yonent ba wala yañ tuxal mu jóge ca saxaaba ya ak lañ toxal mu jóge ci ña doon topp yonent ba ak saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain boo déggee ne am na jenn waay joo xam ne suñ ko indileeb xadis wala ñu ne ko abu bakar siddiq nee na mu ne ah yooyu de moom wala yaqbaluha te du ko nangu aw yunkiru wala muy weddi shay'an dara min axbaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ma ko déggee nag nee na fattahim hu tuumaal ko alal islaami ci diine lislaam ci boppam kooku sooy bëgg nga tuumaal lislaamam ne kii lislaamam aajanaa seetaat ndax kii wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw mu attana taxaw weddi ci dara waxul weddi lépp de waaye aw yunkiru shay'an weddi dara ci loo xam ne sax na ne lii yonent bee ko wax wala moo ko def nee na kooku tuumaal ko ci lislaamam fa innahu nekk moom kat rajulun waay la radiul qawli wal madhab ku bon ay wax ku bon am ngir la képp koo dégg mu weddi moo xam nag lay wu mën a jël ba weddi lu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam kooka jàppal ne suubu na ngir moo xam ne ngir mu bon la te it sooy boo nga xam ne kooka lislaamam ku ñàkk lislaam la euh, loolu mu ngoog wa innama li am kay mooy taana jam na ala rasulillahi sallallahu alayhi waalihi wa sallam wa ashaabihi ki wax yonent bi ñëw mu jam wax ja wala waxi saxaaba yi ñëw mu jam seeni wax nee na kooku jamul wax ja waaye yonent bi ci boppam la jam saxaaba yi ci boppam la jam moo tax mu ne wa innama taana ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi kooku kay yonente baa ki saxaabaam la jam mu firndeel loolu lu tax wax ji jëmul ci yonente bi ak saxaaba yi eh, jëmul ci waxi yonente bi ak waxi saxaaba yi waaye ci yonente bi ci boppam la jëm ak i saxaabaam mu ne li annahu <coughs> innama arafna allaha fan lan xame yàlla nun fan lan xame yonente bi fan lan xame ne alquran alquran la fu ñu ne lii lu baax la fu ñu ne lii baaxut <coughs> fu xame ne àdduna ji buñ fi jógee ëllëg dañuy dem àllaaxira loolu lépp noo ko xamee nee na bil asaar ñi ngi ko xame ci lii ñu jëlee ci yonente bi ak i saxaabaam alxuraan sax pour ñu xam ne alxuraan la fañ ko mën a sukkandiku mooy waxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam yonente bi moo ko wax saxaaba yi ñoo ko solo jëlee ko ci moom amul benn riwaayé ci riwaayé alquran yi jàng lu dul daa ci benn saxaabi yu àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo ci jamee lenn rek weddi nga yàlla wedd bi weddi nga saxaaba yi te ku leen weddi moom weddi nga yàlla foofu lim la fi woon mooy wax ni jullit bi war naa wattandiku li xas sax ne lii ci diine ji la bokk mu wattandiku di ŋàññi loola wala mu di ko weddi la bokk ci diine ji nag mën naa doon loo xam ne alquran a ko jàngale mën naa doon loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale mën naa loo xam ne saxaaba yi ñoo ca dëppoo jàngale ko lu mel noonu ab jullit da ci teey su ko mënee jëfe mu jëfe ko su fekkee lott na ci jëfe ko mu xam ne moom mii moo lott même su ko mënta dégg sax mu xam ne moo lott ci dégg maanaam am xelam moo maax walla euh, xelam ñëwatul mënatul a dégg wala am na lu ko gaar waaye du tax mukk mu ne lii moom li muy tegtale xel nanguwu ko sam xel a ko nanguwut yow maanaam sam xel dafa am lu ca sikk moo tax mënatoo koo xam waaye bul tuumaal mukk texte bi nga xam ne dafa sax jóge ci yàlla walla mu jóge ci yonentam mu ngoog bi loolu jàllee mu ne wa anna al ila alsunnati axwaju min alsunnati ila alquran day lim rek yi nga xam ne yëpp des koo <coughs> yi nga xam ne yëpp des koo war a gëm moom lay lim saa bu ne wa anna rek mu ne wa yajibu limaanu anna wa anna alqurana jaadu na nu gëm ne alquran axwaju moo gën a aajowoo ila sunna ci sunna min a sunna ci aajowoog sunna ila al quraan maanaam dalaa bëgg a wax ne alquran nim aajowoo sunna sunna aajowoowul noonu alquran luy loolu loolu al imaam al barbahaari da ko wax waaye jële nañ ko ci taabi'uun ku mel ne makxuul ashaami wax na ko te sanad bu wér la boo xam ne alxatib al bagdaadi génne na ko ci téeréem bi ñu wax alkifaaya ibnu abdul bar génne ko ci jaamiu bayaanil ilmi wa fadlihi euh, alxaazimi andi na koy ci téere bi ñu wax annaasix wal mansuux sanad bu wér la jóge ci makxuul ashaami mu ne alquranu ila sunnati axwaju min assunnati ila alquran alquran nim aajowoo sunna sunna aajowoo noonu alquran maanaam alquran ni ko yàlla wàccee ak ni mu tegtalee li muy tegtale ngir nit ñi mën koo xam aajo woon a sunna ñëw leeral ko loolu moo tax mu yebal ab yonent mu ñëw di ko leeral nu mu ko doon leerale waxam ak jëfam akum jàngaleem ci la doon leerale alquran maanaam daanaka loolu wax la joo xam ne eh, ku settantal ku nekk xam nga ko buñ la ko waxul woon itam ndax texte bi ñëw am leneen du ñëw di ko soraa la koy sara moo koy leeral kon texte bi nekk ab matn nga xam ne texte la la koy leeral texte bi aajo woon na ko waaye jëmmi la koy leeral moom aajo woowut wax dëgg yàlla texte bi nga xam ne moo gën a gàtt moom muy leeral bale moo tax dañ lay wax ne alxuraan aajo woon na la ca nekk te fekk alxuraan daa ñëw tënk ko te alxuraan daa ñëw tënk ko tënk bu gàtt aaji woona sunna ñëw tinki ko ba nit ñi mën a xam lii borom bi tabaraka wa taala wax fii lu mu doon saxaaba yi dara da daan wàcc duñ dégg ko noo xam ne bokkut ak noona te arab lay wax arab yi leer nañ alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al wa hum muhtadun bi mu wàccee ñi gëm yàlla te seen ngëm yàlla gi ak tooñ jaxasoowu ca noonu la ko saxaaba yi dégge ndax bi zulmin la wax ñooña de seeni xel dal na te it ñu gindiku lañ saxaaba yi ne kon nun ñëpp alkunam parce que tooñ moom kenn mënu cee mucc yonent bi ne leen déedéet du li ngeen di wax de zulm bi saa di wax fii mooy ashirk ah inna shirka la zulmun azim ci alquran zulm bi yàlla di wax foofu mooy bokkaale kon alladina amanu wa soo yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin ñi gëm yàlla te jaxase wuñ ko bokkaale ñooñu ñooy am lool yi suñ borom tabaraka wa taala wax kon saxaaba yi dégg nañ foofu baatu zulm te xamuñu lu muy firi yonent bi firi leen ko moo tax alxuraan ci boppam ngir nga dégg ko sunna moo la koy firil ba nga xam ko lenn li yonent bi da koy wax comme laay jooji lenn li da koy jëfee ñi xam ne kon nii la bi bi yàlla wàccee nag julli leen ñaata julli lañuy ñuy julli ci bis bi kuñ joxoon textu alxuraan te tuxala luñ la nen na nu ñuy jullee nga gën a dégg arab ci àdduna ñu jox la texte bi rek ne la xoolal fi yàlla di dig digle ci alxuraan fépp nga génne ko boo noppee nga julli te mosoo dégg kuy julli mosoo koo gis yàlla xam ne ne doo julli boo ko jàngoon ba mokkal ko gën a dégg ñëpp arab doo julli mukk julli gu niroog julli gi jullit yi julli loolu moo tax ñuy wax ne dañoo di sunna ba noppi di julli julli goo xam ne daa am ay rukkoo yu jàpp ci ay wóom di toog di taaya di sëlmal di jàng alxuraan ak a sëgg ka siggi ñooñu dañoo déclaré dañoo weddi sunna waaye su fekkul woon ne ñi ngi dellu ci ahlu sunna ni ñuy jullee sàcc seenu julli kon duñ mën a julli julli gu mel ne gii ñuy julli benn rakkaa rek duñ ko mën a def ci sunna lañ ko sàccee ba noppi weddi ko baat boobu rek lees mën a jëfandikoo foofu kon sunna aaje woona alquranul karim ci mu leeral ku moo tax borom bi tabaraka wa taala waxub tam ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim dama wàcce ci yow alxuraan ji ngir nga leeralal nit ñi lii ñu wàcce ci ñoom suñ leen ko leeral woon duñ ko mën a xam njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo firi lislaam moo firi alxuraanul karim ngeen ñi mën koo jëfe kon munta ñàkk nit ki jëfe alxuraan ak sunna ñoom ñaar ñëpp mun leen a bañ a jëfe waaye ngir mu jëfe alxuraan faaw nag mu xam sunna bu xamee sunna ci la koy door a mën a jëfe sunna waxyu la woo xam ne ci sunu boroom tabaraka wa taala la jóge ñëw ci yonentam maanaam moom la jàngal lim jublu ci alquran mu ñëw jàngale ko maanaam def na ko ci xolam mu xam ko ñëw jàngale ko loolu moo tax boroom xam-xamee dañuy wax ne ku wax ne aajo woo sunna wala nga weddi ko kooku moom génn nga lislaam maanaam ki ko weddi génn na lislaam borom bi tabaraka wa taala nee na wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa du wax waxi neen lu mu lu ne wax la bu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam noppee lim ci teg loolu mel na ne jaaroon na fi ca gannaaw muy werante ci wàllu dogalu sunu borom tabaraka wa taala mu ne wal kalaamu wax wal jidaalu ak werante wal xusumatu ak xuloo fi l ci dogalu yàlla bi xaasatan manhiyun anhu lu ñu tere la inda jamii <coughs> jamii l firaq mboolem kuréeli diine yi yépp nee na dëppoo nañ ci di xuloo ak werante ci dogalu sunu borom tabaraka wa taala loolu luñ tere la lu tax mu ne la ann al qadara sirrullahi ab dogal nee na sekkareb sunu borom tabaraka wa taala la sekkareb sunu borom tabaraka wa taala lu sunu borom di def lu nekk ci dogalam ba ca la koy def coobare akub dogal ñooy ànd loola am luy ñàkk am lu ne it ci dogal sunu borom tabaraka wa taala lay ame lu tax yàlla amal ko léeg-léeg nga xam ci dara waaye lu ci ëpp doo xam lu tax boo génnoon rekk toog ci nawet bii nga xool ab taw gis li fa nekk ci ay yëf yuy dox yuy naaw yuy watu yoo xam ne lenn lu ci rekk xeetu mbindee fu nekk nga di ko gis te démb bi mu tawagul nekk gu fi woon mu séwét rek nga commencé gis yu xonq yeeg yu ñuul yeeg yu yor ay laaf di naaw fi saas bari lool nag doo mën a xam ci suuf lañ jóge wala ci asamaan sa lañ jóge wala taw bee ko wàccaale wala nu demee loolu ñuy wax ay naar bët te jékki-jékki rek xonq coy fees dell ay gunóor yu xonq yu tasaaroo ci taw bi fan la jóge question la boo xam ne doo ko mën a xam waaye lu muy jariñ itam sànq leen yeeg xorondoom yeeg yëf yi mbindeef yi nga xam ne yow lot nga ci xam lu ñuy jariñ te yàlla bindul dara te bindewu ko xikma lu mu bindu am na lu tax mu bind ko te it ñu nekk nag umamun amsaalakum ni ko suñu borom tabaraka taala ay xeet lañ comme ni ngeen doodee ay xeet yéen itam di organiser seen mbir teg ko ci yoon nga gis xorondom yi yor seen kër boo xam ne dañ koy gas wutal ko ay place yi ñuy daje ay place yoo xam ne fa la ñuy denc seenug lekk bu noor jotee ñu dem wuti seeni pepp kenn ku ne di roñ di indi ku roñ indi doo gis mukk ñu koy lekk ci yoon wi dañuy yanu rek di indi di dugal te dugub yi nga xam ne dafa nar a sax buñ koy yanu dañuy def coppet këleer gi nga xam ne bu ndox ñëwee day sax nga xam ne duutu sax ñu dool ko dugal ci biir pax mi denc ko nga xam ne bu tawoon ba ndox mi wala ngaan ba dugg fa it ndox mi day dem rek mu doonaat aw fepp waaye du sax parce que bu saxee duutu ñu ko mën a lekk kooku kooku am na am na lu muy def am na am na lu ko suñ boroom sol ba mën a lijjanti boppam lu tax ñooñu nekk fi lu ñu fiy def lu tax ñu andi leen fi loolu sirrullahi sekkare sun borom tabaraka wa taala léeg-léeg nit dem ba mu yàgg mu xam ci dara ne ah kii ndekete am na njariñ lii lay jariñ dangay gis léeg-léeg am na ay mala yoo xam ne ñooy lekk yeneen i mala yoo xam ne ñoo gën a tar lor joo xam ne dañ koy lor doomu aadama loolu boo ko gisalee sa bopp da nga naa ndeke am na njariñ waaye kooka it euh, teewut sekkare suñu borom tabaraka wa taala mu nga ci biiram jëmmi doom aadama ji taxaw di wax moom ci boppam rek bu settantalee boppam lim yor ci sekkare yi suñu borom tabaraka wa taala kenn xamul nu mu toll yoo xam ne xamu ko moom yoo xam ne xamu ko yëg-yëg yërmaade bii ngay yëg toog ba mu yàgg nga yëg ne yow da nga xiif danga nga war a lekk loolu fan la nekk ci bopp bi la ne ci tànk bi ci loxo bi xamoo fu mu nekk sekkare la boo xam ne suñ borom a ko def ci yow da toog mu yàgg rek nga yëg ne xiif nga jóg dem wuti loo lekk suñ toog ba mu yàgg nga yëg ne mar nga toog ba mu yàgg nga yëg ne am nga beneen soxla nga waaxu jóg dem waaxu jóg di dem romb kii di waaxu moom xamut li ngay waaxalu waaye xam nga fi nga jëm loolu sekkare la man si yooyu sekkare la yoo xam ne suñ borom tabaraka wa taala def ko ci nit binde ko noo xam ne li ci nekk ci xeetu xikma maanaam noyyi gii ngay noyyi nga xam ne bi nit ki nekkee ci biiru yaayam ñi bind ko ca la tàmbali di noyyi mën a continuer di noyyi di noyyi di noyyi ba judd di màgg ba am juróom-ñett fukki at juróom-ñeent fukki ba ak passé quatre-vingt mat juróomi mu faatu nga xam ne lu ko mën a gaar ci ay feebar moom feebaru ñàkk a noyyi moom du ko gaar fu ko gaar rek foofu la yëf yi jeexe yi moom su fekkoon ne borom bi tabaraka wa taala dafa bind nit noo xam ne lay noyyi mooy pomp dara comme mu yor loxoom di pompe kooku su nelawee rek parce que duut mën a pompe waaye wutalu ko lenn lu koy pompe la koy pomp ci biir lay nekk nga xam ne boo toogee booy dox boo tëddee boo yeewoo boo nelawee cër yooyu moom ña ngay fonctionné jotewul dara ak sa yeewu ak sa ñàkk yeewu kooku kéemaanu suñ borom tabaraka wa taala boo xam ne yàlla lim lim ci biir dogalam bi ak bindeefam ci ay sekkare moom rek moo xam moo tax mu ne yàlla tere na yonent ñuy xuus ci dogalu yàlla wa naha rabbu tabaraka wa taala al anbiyaa yonent an il kalaami ci ñiy xuus ci wax fil qadari ci dogal bi wa naha rasulullahi sallallahu alayhi waalihi wasallam yonent yàlla bi tere na anil xusumati ci xulu fi lqadari wa karihahu sib na ko maanaam araamal na ko asxaabuhu asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ña nga xam ne ñooy ndongoy saxaaba yooyu wa karihahu araamal na ko it al ulamaau boroom xam wa ahlul warai ak ña xam ne ñu sàmm lañ wa nahaw tere nañ ñoom ñépp anil jidaali ci werante fil qadari ci dogalu yàlla kon nu muy def nee na fa alayka maa ngi lay dénk fa alayka war na la bi taslimi nga joxe sa bopp wal iqraar wal iman nga saxal ko gëm ko parce que dogalu yàlla benn ponk la ci juróom benni ponk yi benn ponk la ci juróom-benni ponk yi nga xam ne jullit bi da ko war a gëm yooyu boo ko toppee yépp ba mu jeex mbiram mbóot la xare iman bil mooy tax nga gëm ponk yooyu boo ko tàmbalee woon al imaanu billah da gëm al mooy gëm lu nëbbu moo tax nga gëm yàlla surtout woon lool doo mën a gëm yàlla te gisoo ko déggoo dañ laa tuxalal jox lay xabaar nga gëm xabaar yooyu gëm ne yàlla am na gis ay firnde yu tegtale sa boroom am na mu def ko ci sa xol nga gëm ne sa borom am na malaayika yi ngir gëm ko foo jaar ba gëm ne malaaka yi am na mooy daa am ku ko wax koo xam ne lum wax du dañ kooku mooy sama boroom akub yonentam yonent yi ak yi na ngay jekkee <coughs> yàgguñ am koo xam ne dafa xëy xëy ne yonent la boo xam ne yàlla mooy wàcce ci moom dara ngëm rek moo ko mën a àggale waaye du caagi ni dëgg la nag ay firnde dana am yoo xam ne day wane ne kii lii mu àndal wane na ne ab yonent la waaye ak lu mu mën a doon al iman bil xëy bu moo ko lal téere yi wàcc ci moom noonu la mel alaxira ak la ca aju mu juróomeelu ponk bi lépp gëm bilaay bi kon nag nga xam ne yooyu nag fa nga jaar ba gëm leen foofu nga war a jaar ba gëm dogalu suñu borom tabaraka ko taala ndax ñëw bokk luñ doon danga gis koo xam ne daal lu aju ci dogal bi moom daa jàpp ni lépp dañ ko ko war a firil ba mu dugg ci boppam te xam ne ponk yi ci des kenn firilu la ko ba mën a dugg ci sa bopp lu dul ngëm moo ko àggale léegi ci ko la wax ne yàlla moom bindeef yi mu bind ginnaaw kenn ku nekk xam na fa nga jëm ëllëg lu tax mu bind leen ak lu tax mu di leen digal lu tax mu di leen tere loolu lay wax ne daganut kenn di laaj naan lu tax ak nu mu amee ak yu meloon ci xaq yàlla lu tax laa yusalu amma yafalu wa hum kenn du ko laaj li def ci biirub sañ-sañam ci la nekk di bind li bind waaye rek lii dalal xelu jaam bi mooy wama rabbuka bi zallaami lil abid yàlla du tooñ kenn lum teg fi béréb lu ne loolo foofaay palaasam foofaay palaasam nee na fa alayka bi taslimi wal iqraari wal iman gëmal dogalu sun borom tabaraka wa taala nangu koo saxal nangoo joxe sa bopp ci ak fànn gu mel noonu te bañ cee werante bañ cee xulu bañ cee xëccoo wal iman nga boole ko ak wa atiqaad ma qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lim la wóor ne yonent yàlla bi moo ko wax sanat ba wér ba àgg ci moom nang ko gëm fii jumlatil asiya ci mboolem mbir yi mépp mbir moo xam yonent bi àdduna ca nanga gëm la wax wa taskutu nga téye saw làmmiñ noppi amma siwa dalika ci lu dul loo xam ne teg <coughs> texte wax na ko ci mbirum dogalu yàlla wala mbirum xëy bu bul ca jéem wax loo xam ne ay alxuraan ñëwu ca ab xaddis ñëwu ca ci ay mbir yoo xam ne doomu aadama yaa ngi koy wax ci seeni làmmiñ tam aju ci àllaaxira wala mu aju ci ëllëg wala ci yu mel noonu nee na ci saw làmmiñ téy ci saw làmmiñ <coughs> loolu mooy texu al imaamul barbahari ñu war cee mën a jariñoo ay mbir yoo xam ne day gàttal li weesu woon la ci jëkk laa axada yadxulu aljannata illa bi raxmatillahi wa fadlihi kenn du dugg àjjana ludul ci yërmaande sunu boroom ak ngëneelam an al amaala asbaabun li nayli raxmatillah jëf ye ci boppam ñooy sabab yi tax borom bi tabaraka wa taala yërëm jaam bi ñetteel ba laa axada yadxulu naara illa bi danbin minhu amul kuy dugg sawar ludul dul bàkkaaram moo fa yóbbu moo xam bàkkaar ba bokkaale la mu faatuwaale ko war a sax sawara ba faw wala bàkkaar ba ay mooy yàlla yu ànd ak tawxiid ñu jaarale ko sawara jële ko fa yóbbu ko àjjana waaye képp ku dugg sawara dal waliyaasu billahi bàkkaara la fa yóbbu ñeenteel ba ann nafya zulmi عن الله ليس معناه نفي قدرته عليه لكنه يتنافى مع عدله سبحانه أن النفي الظلم wax gi ñu wax ne sun borom tabaraka wa taala du tooñ loolu firiwul ne daa munta tooñ su ko bëggoon waaye dafa firi ne sun borom tabaraka wa taala sell na kawe na sorente na ak muy tooñ ndax maandu teem ga subhanahu wa taala anna nafyu zulmi an illahi laysa maanaahu nafyu qudratihi alayhi lakinahu yatanaafa maa adlihi subhanahu juróomeel ba anna tacriif alsaxix lilzulmi huwa wadu alshey fi gayri mawdiihi tooñ mooy mbir ma fañ ko waroon teg nga bañ ko faa teg teg ko feneen ak lu mu mën a doon lépp loo xam ne fay palaasam jëlee nañ ko teg ko feneen jàppal ne loolu ak tooñ la juróom-benneel ba anna inkaara sunnati jumlatan wa tafsilan kufrun muxrijun min al millati bi ijmaaci al ulama weddi sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam lépp kéefar la guy génne nit ki lislaam ci dëppoo goo xam ne boroom xam-xame lislaam dëppoo nañ ci juróom-ñaareel ba annahu lawla alquran wa sunnatu wa athaaru salaf maa arafna alxayra wa char bu dul woon alquran ak sunna ak liñ jële ci saxaaba yi ak yi kon duñ mën a xam lu ñuy tudde lu baax ak lu bon duñ mën a xam lu baax ak lu bon buñ ne lu baax fii nag mooy loo xam ne bu ca nit ka jaaree dem àjjana mucc ci sawara buñ ne lu bon mooy loo xam ne bu ca nit ka aw yoon la woo xam ne bu ca nit jaaree dem sawara loolu moom nit du ko mën a xam waaye jubluwuñ nag looy lekk ak looy naan ak yooyu moom jur gi sax xam nañ ko waaye la lay yóbbu àjjana ak la lay yóbbu sawara waliyaasu billah loolee mooy loo xam ne su dul woon yërmaande sunu borom tabaraka wa taala ci wàcce alquran yónni ab yonent boole koog salafu saalix ñi jottali ko kon dun mën a xam la baax dun mën a xam itam la bon juróom-ñetteel ba ann alkitaaba muxtaajun ila sunnati fi bayaani mujmalihi wa taqyidi mutlaqihi wa taxsiisi aamihi moo di ne alquran al karim daa aajowoo sunna ci yi nga xam ne yépp da koo lëm mu feeñal ko bañ xam ko yim tënk mu tinki ko ba mu leer juróomeel ba wujubu taslimi fi baabi alqadar kama yajibu taslimu fi saairi arkaani al iman war na nit ki gëm nangoo saxal bu lépp loo xam ne daa aju ci buntu dogale sun borom tabaraka wa taala ni waree ci mboolem ponki imaan yi ci des ndax kat gëm dogal bi mooy juróom-benneelu ponk bi fukkeel ba xutuuratul xusumati fi lqadari li kawniha tuaddi ila tashkiiki fi qadaa illah wa hada yuaddi ila inkaari alqadaai walqadar wa dalika kufrun werante ak xuloo ci dogalu sunu borom tabaraka wa taala lu garaaw la ndax la muy yóbbe nit ki mooy dem bay sikki sàkk ci dogalu yàlla te sikki sàkk ci dogalu yàlla mooy wommat nit ki ba yóbbu ko ci mu weddi ko te dogalu yàlla nag ku ko weddi rek moom daal ngay génn diiney lislaam ndax daal ngay e, màbb benn ponk boo xam ne ci arkaanul imaan ci la bokk loolu mooy e, liñ mën a gàttal ci texte boobu nga xam ne al imaamul barbahaari moom la joxe tey incha allah ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal nu ci njariñ fegal ñu ci lépp loo xam ne luy lor la incha allah am na yàlla fa yiw guddal fan yi wéral cër yi dafa amoon masala boo xam ne Cheikh Omar Diallo da ko doon laaj dars bi paas ñu bëggoon ko laaj nag far waxtu wi xat mooy ba ngay wax ci yi nga xam ne dañuy jeex ak yi nga xam ne duñu jeex comme lu mel ne annaar wal janna ak euh, ak ujbu yooyu noonu ak ar ruux yi nga xam ne ñeent yi nga xam ne day des ak yi nga xam ne tamit du des comme lu mel ne al arch wal kursi wal lawx wal qalam yooyu nga doon nga ko doon leeral mm-hmm. far waxtu wi xat nga ne danga da nga ci jaaraat far nag mujjoo ci jaaraat ci dars bi passé waaw yooyu yi ci sax yi ci sax nga xam ne wóor na ne dañ fiy des yooyu mooy yi nga xam ne texte wane na dañ fi des ruux moom kenn ko nekk xam na ne ci yi fiy des ci la bokk sawara ak àjjana kenn ko nekk xam na ne ci li fi des ci la bokk ndax waa àjjana nga xam ne la leen yàlla faye mooy ñu dugg àjjana war faa sax ba faw loolu mooy wane ne àjjana doonte mbindeef lay fi lay des ba faw sawara it yéefar yi nga xam ne dañoo yeewoo sax ci sawar buñ fa xasee dugg foofa la ñuy sax ba faw waaye nag lu mel ne al arsh ak al kursi yooyu gisuñu dalil buy wane ne day sax gisuñu dalil buy wane ne day sax moo tax qaayida bi ñu jëfandikoo foofu mooy li ñu gàrtaloon rek mooy lépp loo xam ne gis nañ texte buy wane ne lii daf fii sax walla nam bindoo ci boppam na ko suñ boroom bindee bindiin wo wane na ne daf fay sax ba faaw loolu dañuy jàpp ne dafay sax ba faaw liñ amalul texte nag ba noppi nañ ko bindee amut lenn lu ciy tegtale ne daa war a sax ba faaw parce que arsh ak kursi luy wane ne aajo ji day continuer nekk fa loolu amut kon texte rek moo war a ñëw ne day sax te texte bu mel noonu amut euh, lënt bi nga xam ne moom la ñenn ñi di yaakaar ne dafa am ci lu yàlla bind ba noppi mu sax fi ba faaw ñu jàpp ne loolu kon day mel ne daa am lu mu nuróoleeg suñ borom ndax nun dañuy wax ne suñ borom huwa al awwal wal axir moo fi jëkk moo fi mujj maanaam moo fi sax ba faw dañuy wax ne sunu borom tabaraka wa taala melokaanam ci boppam maanaam sifa daatiya la nim bindoo moom subhan nim nim mel sax laay wax moo di da caa bokk ci ay melokaanam sax ba faw keneen ku moom nag bu saxee yàllaa ko may ak sax te sunu borom tabaraka wa kenn mayu ko ak sax loolu moo wuutale alxaaliq wal maxluuq ci bunt boobu moo tax lu yàlla bëgg mu sax da koy saxal ajal daf ne xaalidina fiha abadan dañ koy sax ba faw sawara noonu yéefare dañ fay sax ba faw kon faw sawar nekk fa ba faw waaye su fa nekkatul duñ fa mën a sax ba faw naam jazakumullah xayran cheikhana wa zaadakum min fadli kii dafay laaj mu ne dafa gis ñuy tegtaloo ci waxu borom bi tabaraka wa taala walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila di wax ne ñi bëgg aji màkka même bu dee gouvernement bi foofu joxu leen autorisation bu ñu mënee fexe ba egg moom war na ci ñoom ñu dem aji ndax aaya bi loolu lay tegtale mu ne loolu lan ngeen ci ubbee walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla faratal na ci nit ñi ñu aji néegam ba ci képp ku ko man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nu sooy armal bay labbayka fa ngay nga waxaale fa ne fa in xabasani xaabisun fa maxilli xaytu xabastani maa ngi nii di armal fas yéene aj wala fas yéene umra waaye su ma amee gàllankoor maa ngi yéene ne fa gàllankoor ga amee foofa laay summi ci sama armal dellu ca sama ñàkk armal loolu lu jariñ mooy soo ko waxee ci sa yéene bu dara gàllankooree mën ngaa rocc ku génn ca aj ga wala nga génn ca umra ga te deret du la war maanaam doo rey dara da ci génn set wecc ba beneen yoon ba ba nga koy man liñ bëgg a wax foofu mooy su fekkee ne organisation ak li ñuy at al taratib al idaariya ci fiq dem na ba waliyul amr wala waliyu amril xaj ñay organise aj gis ne war nañ koo organiser teg ko ci aw yoon ba wàññi lim bi nga xam ne ñoo bëgg a aj si ngir ñi ñëw mën a def seenu aj ci jàmm bu beneenee ñi ñëwul woon ñëw boo liggéey ñi ñëwul woon ñëw ku ñëw benn yoon daal mën ngaa toog juróomi at door a ñëwaat su fekkee organisation boobu loola la laaj day jaadu nit tënku ca ngir mu bañ a lor moroomi jullitam aj nga ren ñu ne la toogal juróomi at toogal juróomi at door a dem ajiwaat ak loo ko mën-mën lu tax ngir ma yaatal sama mbokki julli yi ajagul woon ñoom ñu mën a aj loolu benn la beneen bi mooy su fekkoon ne nit ci tere nañ ko loolu ba àggal mu wëlbatiku def ay pexe moom ba aj ndax loolu day jeexital ci ajam ñu ne ak ajam baaxut déedéet aj ki koy baax na su fekkee ne aj na def nay ponkom def na li war a def lépp dañuy jàpp ne kii aj na waaye nag am na tooñaange ju tege ci aw loosam boo xam ne mën naa àgg ci bàkkaar boo xam ne benn muy bàkkaaru sibeel wala bàkkaaru araamal ndax fekk na ormay ña nga xam ne ñooy awliyaul umuur mu ñu yore mbir ya te war koo teg ci yoon woo xam ne ñëpp danañ ko mën a defe ci anam goo xam ne danañ dana mucc ayib nga ñëw xotti orma jooju ci anam goo xam ne bu ko ñépp defoon mbooloo mu bari seeni bakkan mën na faa des ñu faatoo fa te bu boobaa yéen yéenay sabab si loolu moo tax loolu lu jaaru li jaaru mooy tënku ci waaye nag su nit ko rëccoon ba def ko it mën si ta wax nag ajam nag baaxut aj ga moom baax na ala kulli xaal su fekkee aj na waaye nag yóbbu na bàkkaar moo xam bàkkaar boobu nu mu toll naam jazakumullah xeyran cheikhana eh, lii laaj la boo xam ne lenn ndongo lu nekk fii nee na kay jàngale diine seen dëkk di fa ubbe ci wàllu fiq dañ ko àndil masalaam diine moom mu dellu yóbbante leen ko ngir laaj leen ko masala mooy dañ koo laaj ne ko ñoom seen dëkk jamono ji muy taw bu fekkee nit dafa faatu duñ ko mën a denc ci chaq walla ci laxat waa dëkk ba ne ko ba xam ndax ñoom mën nañoo gas ab bàmmeel ci biir ñu tabax ci ak luy niroog shaq wala laxd ba noppi soog a denc ki faatu teg ci ay bant soog a andi suuf si mais nag loola da ko xaw a jaaxal mu ne mu delloo leen ko ngeen tontu ko ci ok lu mel noonu lu mën a nekk la su fekkee ne suuf sa bindoo na noo xam ne luñ gas lu ne day mabbaat fi saa si ba mënuñoo am pax ñuy gas di tabax loola dara nekku ci am na nu mbir mbir di demee sax man damay wax ne <laughs> suulin wi ñu tudde al ismaat te ñu bari réere ko te aw xeet la ci xeetu laxb al ismaat jaadu nañu delloosi ko bokk naa ci benn conférence internationale boo xam ne ci jamonoy covid bi la en ligne la woon xam ne li ci bokkoon ci ay gëstukat lu gàtt gàtt mat na ñetti téeméeri boroomi xam-xam la ca bokkoon ci ay médecin xaw ma nu mu toll ci àdduna bi ci réew yu bari yu dul jeex euh, waraqa ba ma doon def gëstu moom ci masala moomu ci laaju woon ismaat ci boppam ak fuqahaa yi niñ ko gisee résultat ba ma àgg man moo di ismaat ci boppam dafa jaar ñu dundalaat ko rawatina nun sax ci suñ réew mii danaa leen wax lan mooy ismaat ismaat muy xabru bi ci boppam buñ ko gasee ba àggal ci biir dañ koy tegal ay birig ci côté yépp ba mu des benn poche boo xam ne poche boobu foofu lañuy dugal néew bi buñ ko dugalee ba àggal dañ koy fat moom itam dañ koy fat maanaam lu mel ne am paxaat muy gasaat ci biir xabru bi la dugal ci néew ba fattaat loolu ak ciment birig yi ñu tegoon mu wër xabru bi yépp ci biir ñu taqale ko moom itam ba birig yi taqaloo ak ciment ñu suul ba ñuy suul suuf sa mi ngi wàcc waaye néew ba ma nga ca poos ba moom pax mi lañuy suul ba mu fees ba ci bitti bu paree pax moomu ñi liggéeyee ko noo xam ne danañ sotti ci kaw beton bu forcé boo xam ne bu noppee dana dëgër buñ ca tegee ay karo baax na buñ ko ca tegul na dëgër ba dara du ko mën a bënn jamono yi ñu koy gëstu li taxoon ñuy gëstu mooy lu bari ci médecin yi dañ ne woon ki ñu suul ba pare tam yor Covid bi mën naa continuer di wàll nit moo xam loolu am na wala loolu amut waaye man dama wax ne fu mel ne fii nu nekk noonu li fi nekk suulin yi ñuy suul muy tond léegi léeg armeel yi ay xaj danañ fa dugg wala mala di wàqi bàmmeel yi loolu moom dama ci teg sama bët ci armeel yi yoof yi am na at moo xam ne miir bi ci boppam dafa daanu woon yàqu ñu nekk ci kër goo xam ne dafa faa jege woon ma nekk ci teraas ba gis ay xaj di lawlawi di xëccoo ay càngaay di ñoddi ci biir bàmmeel bi bis booba biñ jullee timis ci jàkka ji ci laa soññe mbokk jullit na leen miir bii day aajana ab jullit defaraat ko alhamdulilah ba wax joojee jibee ci diir bu gàtt weer ak dara ay mbokki jullit taxaw nañ ba miir ba ñu waat ko ba bën bën amatu fa kon loolu war naa tax suuliin wi ñu suule ko noo xam ne même bu amul woon ab miir sax mala munta suleeti xabru boobu leneen li ci des mooy woroom xar xarga fuufa yi nga xam ne dañuy dikk ci xabru yi di ko toj tegtalkat yi di leen tegtal ay càngaayak ak ay ay baaraami kuñ suul ak yu kenn xamul yu mu doon ñuy ñuy bënn xabru yi di neexal gardien yi di leen fay xaalis bu dul jeex ñu di leen bàyyi ñu dugg ci armeel yi di gas su fekkoon ne suulin woowu ñu wax ismaat la kuñ xas suul jeex na kenn mënatu la àgg ci moom te xabru boobu kenn mënatu ko toj di ca àgg moo tax euh, suulin woowu muy wax wàññiwul dara ñu def ciment ci biir euh, kaste ko ba nga xam ne dara dootu mën a dugg ci biir jazakumullah xayran cheikhana wa zaadakum min fadli xam naa man damay leerluwaat ci biir euh, question boobu léegi ñun dafa mel ni suñ boor yi li ñuy def moom bokkut ak chaq bokkut ak laxt daanaka dañuy ñëw wàqi noonu. waaw xam nga fii moom moom dañoo mel ni dañoo yàkkamti daal ci anam goo xam ne dafa jéggi dayo ndax léeg-léeg gis koo xam ne niñ pax miñ gas di ko ci dugal buñ ko dugalee ba di ko suul maanaam ngelaw képp bu ñëwoon liñ suul ci kaw bu wàccee rek danga nga commencé di gis càngaay loolu nag moom du suul moom loolu moom du suul. jazakumullah xayran boo demoon bàqee tey bu ñuy gas ab xabru ca Madina xabru bi bu noppee yow mi dim njool boo ci cëppeeloo daanaka sa bopp duñ ko seen boo taxawee fële doo seen bopp bi léeg-léeg da nga gis ñoo xam ne bu ñu gasee ba àggal bu ñuy yoor néew bi lu mel ni buum la ñuy takk fii takk fii di ko di ko wàcce di ko wàcce ndànk ndànk ba mu àgg ndax xóotaay boo xam ne noonu la xóote loolu wute naag nga ñëw rek wàq fi wàq fi ñu daal di sànni ci biir ñi jal fii jël fii ngelaw li ñëw ëf ko càngaay la naaw muus yeeg xaj yeeg yi taxawal ñëw loolu fooyee doomu aadama la ñàkk ko ormal la itam waxuñu ne nañ tabax xabar yi wutal ko ay ay bàmmeel yoo xam ne ay tabax lay doon yoo xam ne boo tolloo fële seen jàndi mu mel ne ab dëkk waaye jëmmi xabar bi ci boppam jaaru nañu defal ko loo xam ne du ëpp ab chibre ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis ali ibn abi talib Eh, abul hayaaj al asadi daf ne ali ibn abi talib mas maa yónni ci la ko yonent ba yónni woon muy bépp xabru boo xam ne dafa nekk mushrif ma yemale ko ba mu yem kon loo xam ne lu gàtt la lu xam bu dee yëkkatiwu day tolloo benn baaraam mu wër noonu xabru bi lépp doon loo xam ne dañ ko simante kaste ko ba mu ba mu ne loolu moom lu jaadu la ci suñ société yi wallahu taala alam barakallah fiikum cheikhana hmm. kii dafay wax mu ne luy àtteb lislaam ci jullit ñi di ndokkeelante ci atum jullit bu yees bu teeru ala kulli xaal jullit bi jékki-jékki di la ñaanal moom mënoo cee wax leen lu dul amin waaye nag saxul ci dundug saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñoom ñi nga xam ne eh, ci jamono Omar ibn ibn alxataab ci la tàmbali woon taarixul musta sax fenn ne bis bi jëkk ci muharram bu ñëwee saxaaba yi dañuy ndokkeelante ndax dañoo xamul woon ndokkeelante mu kay ndax bu tabaski masaan ñëw wala korite dañuy ndokkelante kon xam nañ ko waaye dañoo xam ne lii nekkul ak ayit nekkul ak feet goo xam ne dañ cee war a ndokkeelante ñàkk a xam nag ba noppi bëgg mën naa dugal ci nit ci lu nekk ndax euh, duñ fàtte mukk ne nun sun réew mi xamuñu woon ne muharram ak feet la mosu koo doon ba ab député boo xam ne xëy na yëg-yëgu <coughs> lislaamam ak mu jàppoon ne diine lay dimbali moo taxaw ca parlement ba di di di soow di soow di soow bañ ne kon muharram euh, ashura nañ ko def nañ ko def ak feet ca lañ tàmbalee di ko def euh, mu jàpp ne aw yiw la def waaye su ko deful woon la chaque année mooy gën ndaxte doonul ak feet ci lislaam du feetug lislaam goo xam ne gu lislaam xam la waaye nag lu mel noonu su ci dara ndax nit ñi ginnaaw ñooy jekki ba mu neex leen ñu xëy xëy créer dara loo xam ne ñoom lii kenn defloowu leen ko ñoo ko defloo ñoo ko defal seen bopp ba noppi taxaw di kaas ba loolu ñu defal leen ko ak fête nationale nga xam ne bu ñëwee réew mépp dañuy dañuy bàyyi seenub liggéey su fekkee mën nañ koo defal seen yëfi bopp kon du kéemaan nit jóg defandara asura itam ba ñu def ko ak feet alakule xaal feet yu bari yi moom réew yi jëm kanam yépp boo seetloo lu mel noonu amuñu ko feet yoo xam ne dañuy xëy ñu ne kenn du liggéey ñu xëy toog lu rëy rek moo ko war a waral bu dee ci réew mi kori ak tabaski ñoo fi doon loo xam ne normalement daa war a doon loo xam ne nit ñi waruñoo waruñoo xëy liggéey waaye leneen lu dul loolu dañoo war a dem liggéey ajjuma nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna yawma aljumaati iidukum bisu ajjuma nee feet la ci yéen jullit yi ak iid la ci yéen ndax li mi firi mooy ñàkk a liggéey déedéet ida nuudiya li salaati min yawmi aljumuati fasaw ila dikrillahi wa darul baya kon ñi nga doon jaay nee na buñ noddee bàyyi leen njaay meeg jënd mi ak tool yi ak bureau yi te dem julli ji ajuma su julli gi jeexee fa ida qudiyat alsalaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillahi wadkuru allaha kathiran laallakum tuflixuun su julli ga jeexee delluwaat leen tasaaroo ci suuf si di liggéey kon bisu àjjuma bi nga xam ne feet la bu yonent bi tudde feet teewul jullit yi dañ ciy doon liggéey lu jiitu julli ga bañ jullee ba noppi dañoo demaat liggéey kon lay tax ñu war a arrêté ab liggéey kenn liggéeyatut réew mépp toog defatuñ dara la cay yàqu ci économie kenn xamul nu mu toll loolu moom bu boobaa dañ xam ne lislaam santaane bu ko ala kulli xaal naam jazakum allah xeyran cheikhana wa zaadakum min fadli kii dafa ne alimam ahmad ibnu hambal rahmatullahi alayhi bañ ko ne assunnatu qaadiyatun ala alquran dafa ne man ñemewuma wax loolu waaye damay wax ne assunnatu tashraxu alquran wa tubayinuhu mu kay loolu loolu dëgg la du imam ahmad rek sax waaye lu bari ci asalafu saalix biñ ne leen assunnatu qaadiyatun ala alquran <coughs> baat boobu dafa diis ci ñoom maanaam sunna mooy atte alquran baat boobu dafa diis ci ñoom ñu ne nun kay nan wax ne rek sunna mooy leeral alquran waaye bun wax ne na mooy atte alquran ala kulli xaal ñay wax ne moo atte alquran yi jubluwuñ ca leneen lu weesu loolu maanaam terme bi lañ ca jublu mooy alquran bu dikkee lay doon ab texte bu ne ñumm nan la ñuy xamee li muy wax na mooy ñëw joxe atteem ne aaya bii lii lay wane bii lii lay wane bii lii lay wane loolu lañ jublu ci àtte bi waaye jubluwuñ ci leneen waaye nag asalafu saalix dafa bokkoon ci seenug maandu mooy bépp baat boo xam ne baat bu bees la boo xam ne peeguñu ko wala ñu jàpp ne manees na koo déggee nii man koo déggee nii baat boobu dañ koy teg ci suuf seet beneen baat boo xam ne amul werante ñu jëfandikoo ko la chaque lool moo gën a mucc ci diine te moo gën a dëppoo ak maandu ànd ak loolu nag téewut asalafu saalix am na ci ñoom ñoo xam ne jëfandikoo nañ baat boobu boo demee ci sunanu daarimi bunt la ko def baabun assunnatu qaadiyatun ala alquran naam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa allah ba talaate ji ñëw incha allah